xanaa di kontaan rek di sant yàlla suñu borom bim ñu mayee ñu fekkewaat ko ndax année bu jot ñu ñëw fekke ñaan gi mu baax ci ñu lool baax ci suñu njaboot waaw di ñaanal sëñ Omar yàlla saxal ko fi wéral ko mu koy def ay ati ati at ca kanam di sant yàlla rek biñ ko teewee waat soxla waaw di ko ñaanal aussi ñëpp ñu koy fekke di ci ñëw ñi mën a def ko moom ñu def ko gox bu waay nekk di fa dundal diine ji nga nga nga nga gën ci farlu waaw ah, gën ci ñaaxale yi loolu la ñuy ñaanal ñëpp fa eh, El Hadj Mounir Ndiéguène imam As ak ñëpp kilifa diine yëpp ñu ngi leen di ziar amul amul xaj amul sedd eh, xajat la kontaan naa ci torop bi ma ko fekkee waat kontaan naa rafet na torop organisation bi rafet na lépp macha allah incha allah faat si Ah, di sant yàlla julli si yonent bi tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal Serigne Omar yàlla na ko yàlla may téeméeri at yu ànd ak wér ak wér la ndax Serigne Omar ni mu def xale yi diine ji waxuma la dara wànde xale yi kenn fowatul bañ na kun si takk tey yëfi diine rek ngay def di ko ñaanal yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla jàppal lu mu man ren bu déwénee yàlla na man lu ko ëpp te Serigne Omar nii lay mën a mel ndax pam muy kenn gënu ko tey nit ki bu la joxee boppam ngay taalibe dalaa war a jàppale te xam ne taalibeem jàppale booy dugg si sëriñ na la xam ne yaay kan jàppale la xam ne ay taalibeem jàppale bu nu amee bànneex mu nga fa bu nu amee naqar mu nga fa ba barki démboo njaay la li gën a neex yëg-yëg ku ne ràññee na la yëg na la di ko ñaanal yàlla nag yàlla na yàlla ko may gudd fan gu ànd ak wér lii mu man ren bu demee ne yàlla na ko man lu ko ëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke Nabi Moustapha. allah waaw ñoo ngi la koy delloo salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di seen maam ja maam alaaj maam alaaj moom njégén na yàlla dolli leeram ñi fi desit yal na yàlla may leen fan bu gudd ak wér ak wér la sëñ ma nuru njégén di papay sëñ Omar Ndiéguène sëñ Omar Ndiéguène daal defuñu lu dul kontaan ci moom ndax yàlla kese du nul te ba mu ko tàmbalee ba nëgg ni ca kaw rek ca kanam delluwul benn yoon ginnaaw yal na yàlla guddal fan yi bàyyi ko suñu kanam di yeesal sunu cofeel at mu ne yàlla may nu tal ak fekkee ba ñuy teewee bis bi yàlla na yàlla dolli jàmm defal ko jullit yàlla yëpp ñi fi teew ak ñi ba am yéene dikk fi xanaa kontaan rek sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñaanal sëñ Umar yàlla bàyyi ko fi ba si kanam a kanam moom ak waajuram yëpp waaw man nag tànta laa si moom ah, mag laa ci moom lépp laa ci moom waaw maa ngi koy ñaanal yàlla bis bi daal yàlla na ko yàgg di def te ñu fekke ko ndax Omar baax na oyof na ah mën naa boot jaboot la daal kon yàlla na ko yàlla jàppale waaw man nag ci ñu démb ña laa dëgg yàlla ndax ñoo bokkoon benn kër maa ngi koy sant di sant yaayam ak i rakkam ak i magam di ñaanal yàlla bisbi bi yàlla na yàgg bis bi yàlla na yàgg ci darajay Muhammad sallallahu alayhi wa